gannaaw ndam lu rëy li nga xam ne Yewwi Askan Wi am nañ ko ci biir Sénégal fii ci département bu Mbàkke ci njiitu sëriñ fàllu Mbàkke mi nga xam ne ni moom la ñu taboon amal nañu ndaje mu am solo ci ndoorteelu kàddoom mu ngi sant nag mbooleem askanu Mbàkke wi nga xam ne ni delloowaat nañ ko kóolute gi mu ngi beral cant population Mbàkke dans son ensemble ci taxawaay bi am solo bi nga xam ne def nañ ko ci taxawaay bu rafet.

jaar ci la coalition Yewwi Askan Wi. mun sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne ni bàyyeekoo na ci ki jiite Yewwi Askan Wi fii ci département bu Mbacké ne na kat ndam lii du lenn lu dut ak soññe feddileeg laxasaay soobu ci liggéey ngir def li tax askan wi tegaat leen ci bopp conseil départemental bu Mbacké. te confiance boobu danañ fexe ba mérité ko lii am solo xëy na victoire bi yéen a ko moom seen mbegte la ndax seen taxawaay dafa rafet. waaye ñun ab soññe lañ ko jàppee ci ñun nekkuñu ci jamonoy banneexu ab victoire jamono ji ñu nekk mooy jéem a mesurer jéem a natt responsabilité bi nga xam ne ci li nga xam ne moom la ñuy dénk xëy na population yi am nañ mbégte waaye ñun am nañ tiitaange ndax responsabilité bi nga xam ne jox nañu ko waaye tiitaange boobu dana mën a jeex ndax su population yi jàppee jàpp lañu ci liggéey bi ñu sumb jàpp naa danañ am ndam. lu jëm ci kàddu yi nga xam ne nii président Ousmane sonk yëkkati na ko di dànkaafu mbooleem ñi nga xam ne dañoo falu ci coalition Yewwi Askan Wi ngir nag ñu bañ a jalgati waaye liggéeyal askan wi leen wóolu ba teg leen fii moom mii di sëriñ Fallou Mbacké mi nga xam ne nii moom lañ teg ci département bu Mbacké rafetlu na kàddu yi. lu am solo la bu am solo la ndax ñun ñëpp dañoo war a soññante xëy na ni mu ko waxee noonu la ko mën a waxee ndax euh, mën nañ ko mën a wax sax ñi bokkut ci Yewwi sax. ndax réew mi ñun ñoo ko bokk euh, ña bokk opposition comme ña bokk ci majorité présidentielle kenn mënut a tolérer kenn mënut a accepter ñu jox la ay responsabilité jox la nguur jox la alal réew mi nga di ko dugal feneen kon wax ba wax bu rafet la wax na ko wax na man man waxal na ko ñëpp waaye nag man waxalu ko rek ngir yow askan waaye waxal na ko pour réew mi loolu day wane na ñun façon politique boo xam ne ne war nañ ko mën a amaat ci doxalinu réew mi ci defar ci leeral ci taxawaay bu am solo ngir population buñ sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne ni bàyyeekoo ci na bàyyeekoo na ci Serigne Fallou Mbacke ne na kat yi gi nga xam ne ni askan wi dumooyu na ko kii di maire bi di Lat Ka du lenn ak junj ak ak joxoñ ci biir kàddoom sax mu ngi fàttali Abdou Lahat Ka tekki ndombal tànkam jébbal lenge yi ñi nga xam ne ni ñoo ko ko joxoon. ci wàllu liste commune du man maay tontu population ñooy tontu ndax population yi ñoo tontu wooteel 39000 bulletins blancs population ñoo tontu wooteel équipe boobu 11000 cartes kon day ma ne ñi woote contre ñu ëpp ñi woote pour pour Abdoulaye Wade wala wala maanaam équipe am loolu nag dafa laaj am njàngat ci moom mi ñu élire entre moom mi jiite équipe boobu mais ak kilifa yi jiite dëkk bi ñu déglu bu baax li population yi bëgg li waa Touba bëgg lu am solo la li am solo mooy man population yi moom wax nañ li ñu bëgg loolu nag jàngat bi ñun ñëpp war nañu ko def loolu nag mën na concerné mu ne kon place Abdou Lahad Ka man damay démissionné tey njeexantalu ndaje mi nga xam ne nii Serigne Fallou Mbacké mi nekk ci boppu Yewwi Askan Wi fii ci département bu Mbacké ci fàttali rek te ndam lu rëy yi ñu am ko ci kanam mboolem coalition yi nga xam ni ñoom lañ ko doon xëccool rawatina Benno Bokk Yaakaar mu ngi fàttali ak a dànkaafu nguur gi ci koppar yi nga xam ne nii war naa bàyyeekoo ci ñoom tàbbi ci ay gafakaam ngir nag mu mën a liggéeyal département bu Mbàkke